kama uhibbu te yonent bee gën a jub ñëpp daf ko ne jubal ni ma la ko diggalee sallallahu alayhi la yàlla di wax ne ko jubal ni ma la ko digalee mastataatum ittaqullaha xaqa tuqaati moo ko jiitu yonent bi di plaider di plaider di plaider yàlla dafa xëy rek ne yonent bi waxal ma jaam yi ne leen nañ ma ragal dëgg dëggi ragal wa taqullaha xaqa tuqaatihi waxal jaam yi ne leen nañ ma ragal dëgg dëgg ragal wala ma rëq seen ndigg wax ko ak ton ferme yonent bi xam ne bii caaf xëm na muy tefesu yàlla yàlla dañ koy tefesu nit dañ koy tefesu géej dañ koy tefesu état dañ koy tefesu kenn du ko def faas boo koy def faas mu yóbbu la laaxira mm-hmm, mm-hmm. géej dañ koy tefesu muy gëq li muy gëq ngay for waaye boo nuuree lab te kenn mënta yàgg ci nuur nit dañ koy tefesu ndax ay jikkoom daa bari xamoo ko danga koy tefesu rek ba ba ngay xam jikkoom rek danga nga ak nit sa ngeen am 40 ans fekk xamoo ko di nga jur doom mu judd ci sa kanam màgg ci sa kanam yaru ci sa kanam liggéey ci sa kanam tekki ci sa kanam ba xëy dee te fekk xamoo ko nit yàlla rek a ko xam moo tax nit dañ koy tefesu état dañ koy tefesu ndax ngu loxol yàlla la yore al muluku aswaatulaay fil ard nee na boobu dañ koo jam hmm. waaw man keroog dama tànn yow wallaay nee na dañ ko jam de al muluku aswaatulaay fil ard wallaay wax naa ko nag ay kilifaam nee naa ko ne def très attention fii Sénégal la mag ñi ko leen def faas yàlla rëq sa ndigg daa amul kilifa almuluku aswaatullahi fi l ard bi nee na buur mooy yaru yàlla ci kaw suuf bi sawt bu fekkee saat la boobu kàddu lay firi <laughs> bu fekkee bi saat déedéet bu fekkee bi siin ah déedéet bu fekkee siin mooy yar bu fekkee saat mooy kàddu almuluku naka buur yi aswaatullahi ñooy yaru yàlla bu fekkee siin nga ko bindee bu wow aswaatullahi fil ard ñooy yaru yàlla ci ko suuf xam nga lu tax damay manifester ñu génnee gémi doo manifester wala boo manifester ñu yóbbu la ci ndungu sin wala déet ñoo mën a ñëw léegi ne baar yi yëpp na tëj baar yëpp tëj dëgg la wala dëgg na baar yëpp tëj baar yëpp tëj dëgg la wala dëgg loolu ñooy yar bee tax boo nee aswaatullaahi ñooy kàddu yàlla ci kaw suuf bu ñu waxee ñëpp déglu leen 4 avril kay ñëppay déglu discours de la nation lu président war a wax bu président waroon génn pour wax it ñëpp a koy déglu tey jii bu ñu doon suba président dina wax ñëpp a koy xaar kon ñooy kàddu yàlla ci kaw suuf. waaw loolu bu dee xadis buñ jamit nañ ko fi bàyyi rafet na te ku ko weddi it doo fi teg lu lu lu ko remplacer de moom ma koy weddi bu génnoon gendarmerie ne ko kaay léegi mu wuy ji kon gëm na bu bu gëmul ne xadisun saxiix la gëm na gendarme bi moom dëgg la wala dëgg ah, ku gëmul xadisun saxiix di nga gëm gendarme bi taxaw fii ngir kaaraange nit ñi policier bi taxaw fii pour kaaraange nit ñi di nga ko gëm kon nañ bàyyi xadis bu nit yëkkati ñu ne ah daayif mag ñi xam nañ liñ xam be noppi kenn mënu leen tuutal yow miy wax xadis daayif ak xadis nangam ak yow sampagoo fi dara mm-hmm. dara sampagoo ko fi yow miy wax dara dara dara dara dara ñetti nit sax toppuñ la xam nga lu ma ci métti nag mm-hmm. ku ci génne télévision ba ñaare nit nuyoo la ñaari roxo rek nga bew nga foog ne yaay Alaaji Abdou Aziz waaw looloo mu métti di commencé nag di xuggas ndikooka joxe ay leçon ak yal nañu yàlla defal sutura ngeen baal ma